auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammad nabilu mi wala alihi wa sahbihi wa xadimi wa sallama tasliman auzu billahi bismillahi nu walillah téléspectateurs yi baaxoo seetaan seen émission bi nga xam ne mooy faj sa jàngoro ci biir seen fas mooy com ñoomaat mbégte tey dellu siwaat ci beneen numéro seet siwaat suñu xarit suñu jëriñ suñu sëriñ sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye le marabout voyant international bëgg a waxtaane waat ak moom lenn ci xam-xam kon Cheikh bi ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye di la dalalaat ci biir plateau bi macha allah rabbi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu wa inni uissuha bika wa suriyatiha min asseytaani rajim rabbi auzu bika min amasati sayatin wa auzu rabbi an yaqdurun la qawla wala quwata illa billahi aliyul azim bay taala ñi ngi lay fay nuyoo di ñaan yàlla weeru koor gi ñu nekk yàlla nañu yàlla may ñu àggale ko ak jàmm di ko ñaanal mboolem juli di ci àdduna bi jërëjëf Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye ci nuyoo bu am solo boobu ak ñaan itam yal na yàlla sama def ci dégg ak topp waaye sëñ Cheikh fi ne du ma du ma du ma tënk koy tënk rek mu gaaw ndax jamono fi mu toll bëggoon nañoo xam bu jamono fii ci xeeti xat-xat yu mel ni balaa yi xew naka la doomu aadama yi war a mën a def ba mucc. Mm-hmm. baytaala jamono fii mu toll. Mm-hmm. ci ni àdduna bi tëddee bu fi jamono tolloo jullit ñi moom faw ñu delloo seen bopp yàlla suñu boroom suñu borom subhanahu wa taala nag dafa ñoo tànnaloon li méngoo ak jamono boole ñoog loola lu ci bari nag nit ñi dañ koo bàyyi te dañoo bëgg wax ni kër bu dee da nga bëgg a dugg nungu woo jaar ca bunt ba mën nga yàgg ci biti mhm. doomu aadama ci boppam nag dafa am bunti boppam ci baatin mhm. bunti baatin yooyu nag suñ boroom a yëkkati caabi ji xool jaamam ñi kenn ku ci ne mu ne yonente bi jëlal caabi teg ci loxoom caabi yooyu nag mhm. la nit ñi sàgg ne waaye xam-xam dañoo wax ni lu mu bari bari soo ko laabiirewul jaam ñi amul solo ci yow mi ko xam kon dina ci ubbi ay bunt rek mm-hmm. ngir laabiire ko mboolem àdduna sëpp mm-hmm. képp ku ci ab jullit mm-hmm. ndax ndigalul yàlla du far mukk ci jaam bi wallahi bay taala bul fàtte ni jaam ñi suñ leen doon laat caabi caabi àdduna waxuma caabi àjjana xam nga caabi àjjana ngay dégg mag ñi di ko wax waaye caabi adduna suñ ko doon laaj nit mm-hmm. ci baatin ni ko won turu yàlla mooy caabi àdduna mm-hmm. bu ko neexee mën naa wax baatu bismillahi bismillahi bismillahi mm-hmm. mooy caabi adduna est-ce adduna bépp mën nañ koo tijji ci bismillahi waaw adduna nag li fi gën a diis ëpp fi valeur gën fi mooy alquran yàlla nee na bala ngaa jàng benn aaya ci alquran mhm. na nga jàng baatu bismillahi yàlla nee na bala ngaa julli benn rakka na nga wax bismillahi mhm. yàlla nee na bala ngaa lekk lenn ci li ma la jox na wax bismillahi kon secret bismillahi mooy caabi àdduna mhm. muy ñaari araf yoo xam ni bu ñuy wax umul kitab muy fatihatul kitab ñaari baat yooyu ñoo ñoo ñooy ñoo ñooy ñooy ñoom ñooy ñooy yaayi fatiha ci boppam mooy bisimillahi muy secret yoo xam ni njariñ li boo ko gëstoo ba pare <laughs> yow lay tiital jaaxal na mooy lu tax adduna di am problème te ñaari baat yi na fi muy loo xam ni nag ñun yàlla def na suñu dox sori na waaye bokk na ci liñ jariñoo ci ndox bi <laughs> mhm. mooy xam turu yàlla yi nga xam ni moo njëkk ci doomu aadama te ëppal ko solo bokk na ci baatu bisimillahi bisimillahi jàng naa ci génn góor yàlla ci xam-xam bam ni ma hmm. doomu aadama waru koo xam jigéen di am problème mu matu ci dëkk est que fi ne bu ngeen indi woon jigéen joo xam ne dafa toll ci diggante doom ji nungut a génn hmm. ci juróom-ñaari bisimillahi li ma ciy def su ma ko ci defee jox la ko fii ma toog su ko ci naanee fii lay amee doom du ak hôpital. te <laughs> waaw. soo ko weddee nga laaj ko daam sama benn taalibe. Mhm. soxna si dafa am problème mu mat. mu ñëw wax ma ko ma jël baat yooyu ma la wax. Mhm. juróom-ñaari baat yi ak la ma koy booleel jox ko def ko ci ndox ni ko soo demee nga jox ko mu naan waaye da nga bàyyi ba ak hôpital. bàyyi ba àgg hôpital googu ma ko wax nag jëfewu ko mu dem joxe ko ci biir këram doom jëfa la génne. allahu akbar. <laughs> keroog góor la waaye moo ko réew leen. ndeysaan <laughs> mhm. yooyu ay secret ak i bi ci topp itam dinaa la indil. Mhm. baatub auzu billahi. auzu wax nañ ni iblis bu amoon lu ko mën a yeew. te loolu dong nga ko mën a yeew ci àdduna mooy mm. baatub a'uuzu billahi yi ma lay wax nag ay xam-xam la yoo xam ne jógewul ci Sàmba jógewul ci Demba mm. ci yàlla la jóge direct ci suñu borom ko suñu borom nee na iblis bu ne jëmm ci sa kanam taxaw mm-hmm. bu la neexee bul jël benn arme arme bi nga xam ni mm. moo mën a maîtriser iblis mooy a'uuzu billahi mina saytaani rajim mm-hmm. boo ne mina saytaani rajim nag danga koy jëme ci iblis mm-hmm. waaye bu la neexee nga ni a'uuzu billahi xool leneen loo bëgg a mucc nga dugal kotam day jàll te la ci musal hmm. kon a'uuzu billahi dañ ci yeew iblis dañ ci yeew nit ki noppam dañ ci yeew leneen turu iblis lépp loo bëgg a mucc ca loola daal yëkkatil ñaari tur yàlla yii hmm. muy a'uuzu billahi man boo ci jubloo seytaane hmm. nga ni mina saytaani rajim boo ci jubloo bàyyi taala nga ni mina bàyyi taala nangam soo ci jubloo keneen ci àdduna nga dugal kod bi mu jàll. moom daal bu code ba ñëwee ànd ak ñaari baat yi rek. ma moom ñaari baat yooyu doxal. te yii ma lay waxal nii. Mm-hmm. malaayika yi sax amuñu kattanu doxal ko comme kattan ci yàlla def. Mm-hmm. nit rek moo ko àttan moo ko mérito. bi ci des dinaa la indil baatub astaxfirullaha. Mm-hmm. astaxfirullaha wax nañ ni. li gën a diis ci àdduna. ci li nit di yanu mooy ab bàkkaar lu gën a diis bàkkaar ci li nit di yanu amul te bàkkaar astaxfirullah rek moo ko mën a teggil doomu adama bi lu mën a tegg bàkkaar nag ab soxla taxul ñuy wax ab aajo taxul ñuy wax secret boobu nee naa la li tee doomu aadama yi jeex mooy dañoo xamul secret boobu mm-hmm. yàlla tàggatal nañu tur woowu ba xam nañ lan moo nekk ci biir tur wi muy astaxfirullah astaxfirullah astaxfirullah secret la boo xam ni day dox ci doom day dox ci alal day tegg ay natt mhm. di génne nit ci ay xat-xat wax nañ ni alal dëgg dëgg boo ko bëggee am mën nga koo jaar ci istixfaar dëgg dëggi alal njaboot mbay mu barkeel mag ñi njëkk ñi daan nañ wax ni nawet bi su taw bi dikkul suñu tuubale yàlla ci nim ñu ko santaane ñaan ko mu taw mu taw ci sa kaw suñu ñaan googu ñu ko ñaan muy baatu istixfaar yi tey bëgg naa la ko indil ñu gën cee dellu bu baax bi ci topp mooy alhamdulillahi mm-hmm. muy sant yàlla mm-hmm. alhamdulilahi moom li nekk ci biir dañoo wax ni àjjanaa ci gën a tuuti. est que sant yàlla. nekk ci biir àjjanaa ci gën a tuuti. est-ce hmm. bépp jaam boo gis mu bëgg dund dund àjjanay àdduna su xamee luy sekkarab alhamdulilahi mën na ko am fii balaa faatu dundam gépp taxawee taxawaayu àjjana yaa ngi dégg. Hmm. su ko defee ma tegal la ci ñeenti baat yoo xam ni yonent bi nee na nit ki noppam liggéeyagul yiw wu toll ni baat yooyu allahu akbar yaa ngi dégg mm-hmm. yàlla suñu borom subhanahu wa taala daal di koy layal ci alquran ni wal baqiyatu salihaati xayrun inda rabbihi tawaabun wa xayrun amala baat yooyu mooy subhanallah mm-hmm. walhamdulillah mm-hmm. wa laa ilaha illa mhm. wallahu akbar salaawa salama nee na ñeenti baat yi balance bi yàlla yi nattee jëfi nit ñi yowmal qiyaam mhm. suñ dajale woon jëfi nit ñëpp teg jël ñeenti baat yi yiw ci nekk teg ko mu daaneel jëfi nit doomu aadama yi <laughs> ñu ni nit waxul ci kaw suuf lu gënal yàlla ñeenti baat yooyu mhm. subhanallah walhamdulillah wa la wallahu akbar wallaahi dinaa la ko indil ndax ay ngëneeli kese la mhm. na ko doom aadama yi bàyyi xel mhm. yaa ngi dégg bi ci des dinaa la indil baatub laa ilaha illa allah la yàlla teg sax dafa leer laa ilaha illa mhm. mu ni wax daxoo laa sarika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir mhm. kon laa ilaha illallah tëj na wax ji ngi dégg laa ilaha illallah mhm. dafa nekk loo xam ni wala zikrullahi akbaru dañoo wax ni tudd yàlla mhm. moo gën a màgg ci kaw suuf ci li nit ñi di def yaa ngi dégg mm-hmm. laa ilaha illallah nag dafa bokk ci baat yi ñuy tuddee yàlla ak baat yooyu ma la njëkk a wax muy subhanallah walhamdulilah wa laa ilaha illa wallahu akbar mm-hmm. arifuuna billahi yi muy nit yàlla yi mm-hmm. ñoom day dëppoo nañ ci ni doomu adama yi bu ñu xamoon secret laa ilaha illallah ñooy décider décider seen bopp bisub yowmal qiyam la cay aju lépp ñoom ñooy toog décidé ko. yaa ngi dégg. ñoo naan bis nangam lañ bëgg yowmal xiyaam am am ndax bu ñu waxee yàlla ci turam woowu mu wuy si leen ci. ndeysaan kon xam nga yooyu mooy yi nga xam ni mooy sekkerey doomu aadama yi. maa ngi woo nag. lim jullit. ñu dellu ci yooyu ndax yooyu mooy yi nga xam ni soo ko toppee ci xaqiiqa ci loxob yonent bi la jóge alayhi salaatu wasalaam jógewul ci loxoy awliyaawu mm-hmm. ci ay kamatara mm-hmm. nit xëyul gént ko mm-hmm. li ma la wax du ay léeboon du ay léppoon lu jóge ci loxol yonent bi la ngir jullit ñëpp terewuñ ko kii bàyyi kii nëbbaluñ ko kee laqal ko kee dañ koo teg ci taabal ji mu ni fang ni dang ñëpp di ko gis ku am góor góorlu yaafuusoo suñ borom ne la ci jotale yaa ngi dégg. Mm-hmm. xam-xam bàyyi taala jumbul kenn. lay ndeysaan. xam yàlla dong. Mm-hmm. mooy xam-xam bi nga xam ni moo tax ñu naan xam-xam te ku yàlla bind mën ngaa xam yàlla. te <laughs> ndeysaan. yaa ngi dégg. Mm-hmm. suñu borom nag ba àdduna soo ba léegi. musu koo dénk ragal. musu koo dénk keneen kuy déglu ku dul yàlla. wala xadd katab naa. fi saburin min baadi zikri anna al arda yarisuha xibaadiya saalihun yàlla nee na hmm. ñi nga xam ne dañoo saxoo tudd yàlla hmm. dénk naa leen adduna ak li ci biiram lépp hmm. kuñ dénk nag dangay doxal ah, <laughs> kuñ dénk da nga war a doxal moom waaw ku yenu da ngay dem lay yenu taxaw yenne ko da koy gën noppale ndax coono bi la jariñ dara li yàlla dénk nag dañuy dem ak moom ku yéeg ñu yóbbaale la. wallaahi ndax adduna biit bay taala mhm. ñi faatu faatu nañ ba pare. Mhm. ñi fiy dund ñoo fi nekk ñoo koy lijjanti bu ñu faatoo ñi fi des lijjanti ko rek. wallaahi sëñ Hadi Touré daana wax ni. Mhm. doomu aadama bu faatoo yéen bu ngeen doxalul montre bi mu takkoon sax du taxaw day continuer di dox. dégg wax bi <laughs> ndax mbiru yàlla. mooy dox ci nit ñi te yàlla mu taawu. Mm-hmm. di di deltu ginnaaw ka arrière. wallaahi li mu waxoon du sensé ba yowmal qiyaam du sensé. wallaahi mënuñoo am pexe mu ko sensé. Mm-hmm. mënuñoo am tolluwaay bu ko sensé. Mm-hmm. yàlla lim jiital moo jiitu yonent bi moo jiitu ci nit ñi. alquran mooy ummul kitaab ku nar a jaaxal ne ko nañ fa dem xool. la wax fekku ko ci alquran. xamal ni xaala seex rek la. te seex yi ci adduna bi yëpp. Mhm. li ñu wax boo ko bëggee déglu sax yow sa bisub dee fi la lay fekk ngay déglu. <laughs> te doo ci déglu bi. doo pare ci déglu bi. lay dee sax kon li nga xam ne moo ëpp importance. Mhm. mooy ñu déglu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. te fas yéenee doo ni jaam tënku ci ndigalul yàlla tey def luñ xam luñ xamul ñu maandu ci danga wax bi doomu aadama mooy jariñ boppam man arafa nafsahu faqad arafa rabbi jamono boo xam ne sa bopp xam sa borom ci lu yomb. lay ndeysaan waaye yaa ngi mm-hmm. waaye jamono boo umpalee sa bopp doo xam sa borom doo xam sa morom. Mm-hmm. nit koo gis mu umpale boppam. Mm-hmm. ab yeefus lay doon. dabaag werante rek <laughs> du xam boppam du xam boromam waaye koo gis mu jëmee boppam ci jëmmam. dina xam boppam xam boromam su ko defee liy soxla ci koy soxal mooy jëmmi yàlla te jëmmi yàlla moom. ku yàlla sàkk rek ca nga bokk. Mm-hmm. yaa ngi dégg. bu nañu bàyyi xel àdduna bii. Mm-hmm. adduna la boo xam ni ab ragal du fi nekk. Mm-hmm. ab yaafus du fi nekk. borom xam-xam bu sàggan nag. la nga xam doo ko jëfee. waaw ah, ku baax hmm? ci yàlla ah, ndax ku ñuy yooxu fu ne. Mm. fu ne ngay geesoo. waaye nag day toll ci jamono foo xam ni. ñiy yooxu ñëpp dootu leen déglu. da ngay déglu leen di yuuxuloo mm-hmm. te jéem a xam lan la foofu la adduna toll mm-hmm. li ma laaj daal mm-hmm. mooy bu jamono tolloo fii nu ñu war a doxee ñun jullit ñi ni ñu war a doxee mooy jiital yonente bi ci suñu yëf te déglu ko ci kàddu yàlla gi jaaree ci moom ngir ñun jéem koo jariñoo kenn ku ne xam ni li ko suñ boroom wax ni ko afa xasibtum annama xalaxnaakum abasan wa annakum ilayna la tarjaxoon fa taxalallahu malikul xaq la ilaha illa huwa rabbul azizil karim mm-hmm. mooy dëgg yàlla bindul nit ngir jublu ci am po waaye bindul nit it ngir nit ñëw fi di fo mm-hmm. hmm? te <laughs> waaw te itam lu taxaw ci suñ kanam lu mu diis diis mm-hmm. yàlla xamal nañu ko bu yàgg wala nabluwannakum bi shay'in min xawfi wal juuxi wa nafsi min al amwali wal anfusi wa samarati wa basiri sabrina li ñu yàlla dikk ci ay nattu mu war a ñëw yàlla wax nañ ko leeral nañ ko bu yàgg mhm. kon nattu bu fi ñëw ci kaw suuf mhm. dañ ko war a affronter xool ko xam lu mu doon jëm koo dund ci niñ mën a dundee ak moom te wees ko dem di séentu leneen lu ko gën a diis ndax yàlla ñu ko wax te du mhm. waxantu kaddu gu mën nga koo dégg teg ne waaye kaddu gu jige ci kilifa gi jëfe rek mhm. adduna nag yàllaay kilifa gi képp ku fi yaakaar ni yaa yilif adduna bi mhm. bu dee président nga mhm. laajal ñi ñi fi nekkoon président toog ñi la jiitu woon <laughs> ñi ngi fi toog yilifuñ kenn bi wallaahi ndeysaan yaa ngi dégg bu dee yonent nga ana nga nañ la di bu dee nitu yàlla nga ana nga ku la bëgg a gis day ñëw soo xobru de kon yàlla mi nga xam ni moom mooy boroom adduna ak alaxira yàlla mi nga xam ne mooy way sàkk ji ci nim kon neexee la sàkkee moom la ñuy déglu ci suñ lépp man da taal yàlla mooy sama kilifa <laughs> même képp kot dong dégg nga dégg <laughs> bu baax salaahu salaam rek lay déglu alayhi salaatu wasalaam xam-xam bi ma yàlla xamal nag mhm. doy na ma sëkk ci digganteem ak jaam ñi ma booleel yaa dégg mhm. lu ne maa ngi koy dégg ci réew mi mhm. waaye damaa xam ni ku yàlla dénk mhm. te lim la dénk di dëgg mhm. dinañ la dégg ala ku hmm? la dégg waaye nañ lay dégg ci loo xam ni suñ ko dégloo dégg ci yàlla surtout ñu solo dégg nga wax bi ndaw ñu nañ gën a góorgóorlu macha allah yaatal seeni dënn te jamono fi mu toll. gisee fi bëti saayir amatul solo. bëti xol. leer xol. la nit di xoole man a gis li ci kanamam ndax lépp lëndëm. dégg nga wax bi bu baax. maa ngi bañ kii nag maa a <laughs> allah am na am solo leeral bi dafa am solo ndax delluwaat ci suñu borom la kon seen sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye su ma la déggee bu baax daal maanaam li ngi fi tënk daal lépp moom génnul ismulahil azam moom. waaw xam nga ismulahil azam mooy àdduna. yaa ngi dégg borom cërub yàlla nag dafa am nu muy toll moom arifuna billahi yi boo ñuy wax ñoom dañuy wax ni tawadda bi ma il xayb bi tawadda bi in kunta sa sirrin ñun suñu secret bu bu ngeen ko xamul bu leen bu leen dugg ci suñuy mbir di lañ bët te seen secret mooy yàlla mi leen sàkk mooy seen sekkaraay ndax lépp lu ñuy dox ci kun fekkul lañ koy doxal wala bi isnillahi ci ndigalul yàlla ñooñu seen sekkara mooy seen boroom te doomu aadama da ngay toll foo xam ni sekkare bi sekkarem nit ñi suñ borom dala koy xamal loolu moo tax ñu ni sirru sëhri ilan naas yi jamono boo demee ba xam ko bokk nga ci kàngam yi bokk nga ci tànneef yi bokk nga ci ñi nga xam ni bu doomu aadama yi dawee wut si la mhm. da ngay taxaw xaar leen ndax ragaloo la ñuy indi mhm. xam man moom lu ma waay yan waxoon naa la ko fii ci émission lu mu diis diis mhm. yàlla laa koy yenn <laughs> ndeysaan wallaahi moo tax dara diisul ci man dara jaaxalaguma ci àdduna asamaan ak suuf diggante saraaya wasura li fi xew lépp li ci am lépp te yàlla di ko amal lu ma fi fekk dinaa ko xaar ba ak agsi man du ci daw dara. macha yaa ngi dégg. Mm-hmm. suraa nag mooy suuf si gën a sore ci suuf yi. Mm-hmm. saraaya mooy biddiw bi gën a kawe ci biddiw yi. ma ne diggante ñaari biddiw yooyu. Mm-hmm. li fi di xewal jëmmi doomu aadama ma ne lu ma fi fekk. fi xaar ko. dégg nga wax bi. ndax man dama gis ni doomu aadama. lu mu doxale yàlla ci digganteem ak boppam mhm. looloo yof toy ndeysaan lu munta sotteet amul ndax mhm. yàlla mi sottal lépp mi ngi ci nit ñi mhm. te jël na bagaas yi teg ko ci loxol nit ñi wallaay ndeysaan li malaayika di gaaw gaaw doomu aadama ko gën a gaaw ani malaayika hmm. li muy gaaw gaaw doomu adama ko gën a gaaw foofu ci faj aajo te Seydina Jibril moo jiitu gaay bu yàlla yàkkamtee moom lay yónni waaye bu gënee yàkkamte nit ñi lay yónni yaa ngi dégg waaw damay bañ a dugg nag ci bagage yi sallallahu alayhi wa sallam waaye yonente bi <laughs> ndeysaan dooleem hmm. daam fu ci Seydina Jibril yam ngir xam ni hmm. doolee rasulullahi hmm. xajul sax ci malaayika te ci nit ñi la bokk dégg nga wax wala dégg wax bi. <laughs> fa nga bëgg dugg daa sori foofa yegg gu ma fa. <laughs> waaw yow <laughs> da ngay indil beneen journaliste bu mag daa taala kon foofu yegg gu ma seex bi foofu moom xam naa ni euh, wala ma xam ne xëy na koor gee ma xaw a jàpp waaye fa nga bëgg dugg daal des na tuuti bàyyi ba ba ba gëstuwaat tuuti incha allahu rabbi. Mhm. Euh, jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci leeral bu am solo boobu daal fi mu ne daal kon wax dëgg yàlla fi jamono toll xat-xat yeeg kenn ku ci ne am na yoon wu mën a war a teguwaat te lépp génnul suñu borom te lépp génnul mbindam mi nga xam ne moo ko bind jaarale ko ci yonent bi tedd bi jaamam ñi waaye sëriñ seex bëggoon nañoo xam ndax dañoo gis xeeti feebar yi nga xamante ni tey docteurs yi walla médecins yi gën a xereñ ci àdduna daf leen jaaxal sëriñ Cheikh Ibrahima ñu gis nga am yoo ciy faj. Mhm. li tax ma ne ñu gis nga am yoo ciy faj sañu maa wax lépp waaye daf ci am yooyu ña nga ko fajal ñoo ma woo ñoo ma wax. ku ci mhm. mel ni sëñ bi ca États-Unis sama góor ga ca Amérique. Mhm. reso yàqu. léegi loolu xam-xam la baatin la lan la loolu lañ bëgg a xam. waaw loolu xam-xamu nii la xam-xamu leer la parce que sëriñ bi tollu ci liiri kéet ak diglu ay bayit ak toppam njàng amul xam-xam boobu hmm. danga wax bi hmm. xam-xam boobu ab juddu joxewu ko parce que tànn gu nit ñi tànnal seen bopp taxul nga xam ci dara. Mhm. yaa nga dégg ndimbalul yàlla mooy tax nga xam ci dara. parce que ak tolluwaay booy toll ci suñ boroom. Mhm. ba li nga xam ni daf ko nëbbu leeral ko tuuti boole la ci ñam ko leeral yaay mën a man dara ci loola. yasalunaka ani ruux li ruuxi min amri rabbi ma utiitum min xilmin illa qalila tuuti tuuti doomu aadama rek nga xam dara ci loolu su ko defee daal yooyu xam-xam <laughs> ñi ko wax ci télé moom mhm. adduna li ci biiram buñ daje woon ñi ko wax waaye yi ma ciy def muy jaaxal gaa yi daal bu mu leen jaaxal mhm. ndax doomu li yàlla namu ci moom rek mooy am nit ni yow nag mhm. waru laa wax rek nga gëm ko doomu aadama da ngay am ñaari nopp mhm. nopp gauche ak nopp droite nopp gauche bi ci ngay déglu nit ñi mhm. nopp droite bi nga ciy déglu yàlla ak yonent bi dégg wax bi ku ñuy déy nag da bëgg tëg ku kenn déyul wallaay ndeysaan xam-xam yooyu dañoo koy déy moo tax duma ko mën a <laughs> duma doy na waar doy na waar ah no ngi koy nuyu bu baax a baax sëñ Bay tey ñaan ñaan di ko ñaan moom bu baax sama borom lu gën a guddal fanam te wéral ci ram ndax yéen a ji maam lii ma wax nii moom bu yegsee ci réew mi dana toog wax ko te télé yeeg ñëpp jël ko maanaam la ma wax ne ma yéen a ji mooy lii bëggoon naa na nga laajal ma xeeti xam-xam yi yan xeeti xam-xam la waaw xam nga sëñ Bay moom faw mu caalit ndeysaan ndax euh, médecin yi dañ ko joxoon bisu faatu ni ko baax see ci ngay faatu mhm. ah, ma jotee ci ay mbiram dama ko wax ni ko di nekk ci loxol yàlla daa ump nit ñi mm-hmm. nañ bàyyi noonu waaye yii ma lay defal moom su ma la koy defalee moom nelaw nelaw yeewu rek moo tax saa jamono yee da daan xam bu xamee ba ci yàgg ximmali <laughs> ne ni sëñ bi la décidé gul sama dem waaye loolu lépp ndeysaan yàlla nekk ci biir mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. te wax naa la fii léegi ni la yàlla bindul doomu aadama yi rek ngir am pox adduna bi nag lu manki manki góor yàlla dina am ñu yàlla dénkal boppam. du man nag ca laa bokk waaye daal xam naa ne. Hmm. yi fi yàlla soriwul yor nga ci dara daal. <laughs> yi fi yàlla moom soriwul. macha allah. Hmm. jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci leeral bu am solo boobu macha allah wax dëgg yàlla waaye bokk na ci tamit euh, euh, réew mi moom est-ce que xam nga ni ñi ngi lay ñi ngi lay ñi ngi lay ñi ngi lay mbamb. ndax danañ sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye dafa yor ay jinne yu koy jox xaalis ndax ni muy def xaalis jaaduwul. ñii naan lii ñii naan lii waaye man leen man danaa ko laajal sama bopp moom mu wax ma ndax dafa yor jinne yu koy jox xaalis wala dafa am hmm, day luxus xaalis wala nu mu xaalis daal saa yi ci dégg dégg naa lu <laughs> ah! na waar de. waaw waaye xaalis euh, day rek loo xam ni doomu aadama dañ koo bàyyi xel de trop. ay san waaye man yàlla gën a bàyyi xel ab xaalis. yaa ngi dégg dégg la laaj de waaw maanaam ni ma toppee yàlla noon la ma alal alal yi àdduna toppee loolu ndimbalul yàlla la ci man waaye nekkul ni dañ may ci yi ñuy wax yëpp benn la ci mm-hmm. waaye nag ñàkkuli bagage dégg wax wala dégg wax bi waaye ñàkkuti bagage ñàkkuti bagage ni bagage yi ñu koy waaye ñàkkuti bagage dégg wax bi <laughs> gars yi nag baataa nee na ñu bàyyi ma man tur wu ne dégg naa ku ne ñëw na fi dama laaj turi xaalis ne den sëñ bi nee na. Hmm. ngeen bàyyi ko. ah dana fi mu toll nii moom yéeme na daal. Hmm. yéeme na waa ji moom nee na ma daal nekkoon moom tudd tudd bu ko wooyee si Njaay Jinne de ko wooyee Njaay xut bi ma ni ko loolu lami tudd sañu ko sañu gu ma koo tudd mu ne ma wax ko maa ko xam ma ne ko ah mu ne ma ne mu doon mu ne ma sama doom mooy la may joxe misaal ndax nee na wàllu rabak yi ñuy wax nii ma ne ah, mu ne ma ku la ci sub ci àdduna fii amul ma ne ko loo ko foo luy firnde ji maa ngi koy nuyu bu baax a baax sëñ Issa Sylla ca Côte d'Ivoire mhm. misaal mi ma jox nee na moom jëliwut fenn misaal doomam ju jigéen mhm. nee na fu juróomi doomu aadama fukk masaana daje mu daanu ba kenn dootu ko téye mhm. nee na wër na Saalum wër na Siin wër na Bawal kenn mënu ko faj te nee na bi nga koy faj booba xamutoon ni sax ndax yow ab sëriñ nga ndax ab xaritam nga waaye nee na baatin ba nga ca def mhm, moom nee na bi nga ko joxe la nga koo jox ba def ci la nga def nekkoon na ko boole ak yaxu ñay mhm. nee na gëmu ko woon mhm. waaye nee na teewut mu def la muy def rek ba fii ma toog di wax ak yow maye nañ ko am na ñetti at ba ma ngay sëy ma nga ca yeneen te dañ ko ni woon lii ma lay jox demal nga yóbbu faj mu defal defe ko nangam ak nangam boo paree maye ko mu ni ko maye nga ni ko maye ko wóolu Youssou Ndour ku la neex mu ñëw lii moom pare na ci moom dootu ko def. Mhm. sëñ Isaaxa moo ma wax ma wax ma di la laaj question boobu loolu tam naka la demee tam. Mhm. xam nga wàllu rab réew mi ñu bari dañuy wax ci mbirum rab xamuñ ci dara. doy na waar rab ak doomu aadama ñooyam nit ñi am na ñoo xam ne da leen di forcer am ñoo xam ne da naxanteek naxanteeg ñoom. Mhm. rab yi am na ci ñoo xam ne da leen di digal ñu def am na ci ñoo xam ni da leen di laaj bala ngaa dugg ci ñoom. moom dafa àndoon ak rab boo xam ni kenn du ko forcer nit ñi bëgg koo forcer mu jóge ci ñoom moom. Mhm. du sotti. Hmm? waaye xam-xamu rab bi nga xam ni doomu aadama mën na koo yor di ci jariñe mooy bi ko yàlla dénk surtout. rab bu la dénkee boppam yaa ngi ci erreur ndax bis bëggee dem doo ko mën a téye waaw xam-xam rab bii ma am nag man day bu ma yàlla dénk moo tax rab yi am nañ kersa ci man comme ni ko doomu adama yi amee. ndeysaan yaa ngi dégg. Mm-hmm. ruus nañ ma wax leen dara te defuñu ko. allahu akbar ndax dañ ma rusee yàlla kooku du bokk ak koo xam ne rek daa takki rojam naan wàllu rab déedéet. rab yi dañ ma jàppee kilifa su ma ñëwee ci seen biir dañuy yëg yàlla ci man ruus nañ ma ruseel goo xam ni mhm. damay am kersak sax di leen digal wala ma leen di bàyyi waaye amul benn bopp boo xam ni ngelawal saytaan yi ci biir walla amul kenn ku rab di jëflanteel ma àddu ci raw di fa fanaan su yëgee ni man ngay ñaanloo ci rab wi sax day bàyyi. Mhm. loolu mbir la mbir la. mbir la mu diis mu naqaree waxtaanee waaye daal. Mhm. rab yi moom yilif gi ma leen yilif jógewul cim njàng. dégg nga wax bi. Mhm. loolu noonu la demee ba tax. jógewul cim njàng loolu daal yi fi yi fi suñu borom yu ñu lay dee daal. waa man samay bagaas li ci ëpp mbirum xaqi la day day day day xam-xam bu wér. te bitam li ci ëpp dafa laxasu ci baatin boo xam ni wali yu njëkkee moom lañ yoroon yoruma yi nga xam fii waxoon naa ko bu yàgg mm-hmm. ndax ñi may jëflanteel yi may dugg di ko lijjanti junni sëriñ boo leen boole woon a xam-xam yi jàng mënuñu ko lijjanti dégg nga wax bi mm-hmm. loolu da koy sóoraale ba sóoraale rek doo ci am mbetteel <laughs> macha jërëjëf sëñ Cheikh ma Ndiaye ci leeral boobu tamit macha allah am na solo wax dëgg yàlla waaye bokk na ci eh, soxna su baax sa nekk États-Unis mm-hmm. lan nga ko ñaanal ba moom fi mu lu mu gis lu baax lu mu gis lu rafet rek mu yéene ko sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye. ah lu ma ko ñaanaloon daal dinaa ko yokk. <laughs> yaa ngi dégg. ndeysaan. ndax mag bu amee juróom benn fukk at ak lu teg. Mm-hmm. def la kilifa lu muy dugg wax la. ndeysaan lu bëtu la boppam. Mm-hmm. alalam day yëkkati jox la ba nga rus koo sax euh, boo gisee téléphone am doo ko wax da ko bëgg wuy ndax day am lu lay jox. Mm-hmm. yére fu mu gën a rafetee mu baax la. xam nga jasneer bi yi ma sol. yaakaar naa bokk naa ñi ko njëkk sol ci réew mi. wallaahi ndeysaan. jëndu ci benn jëndu ci ñaar. wallaahi mu ko yëkkati yónnee ma. Mm-hmm. fay te yére ya ko ñaw. ba pare topp ci di sant yàlla. <laughs> moo tax ma laaj question bi ne moom lan nga ko ñaanal ndax xam naa ni ñaan gu tax fi ne moom moom fa mu ne moom lu mu gis lu baax rek moom moom sëñ Cheikh ko yéene moom. waaw xam nga moom daal li ma la mën a wax bay taala mooy maa ngi koy ñaanal yàlla nee naa ko nag lan nga gën a bëgg ci àdduna moo ni ma alal nee ko amul kenn koy bokkal ci li des sa dund te ko ëpp alal. loolu daal laa ko dogal waaye des yëpp. Hmm. dama ko bàyyi noonu rek. <laughs> ndax moom moom gën a bëgg loolu la kay. ñi ma àndal am nañ fulla joo xam ni. Hmm. soo ma xoolee bëgg ma rek ñu wuy si la. ndeysaan. sama hmm. nañ melokaan woo xam ne soo bëggee wuy bëgg ma bëggee rek ñoom ñu wuy si la ñoom. ndax googu. kon yi ca des sama ma lay ñaanal ak yooyu ma saful di wax waaye soo ma bëggee rek yow ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo lay dimbali mm-hmm. képp ku ma bëgg foo mën a nekk ci adduna. Mm-hmm. ñoom yëg nañ ko ndax man dama ànd ak bagaas bagage te dañoo bari tuuti wuñu. wax bi. Mm-hmm. wala déggoo ko. dégg naa lu baax. waaw lool la loolu noonu la demee. macha xam naa fi ma bëgg a jeexalee rek mooy damay dégg coowal gént ñu bëri di ci wax. waaye ñu bëri bu ma leen dégloo ci seeni wax ci firi gént ci ay téere lañuy sukkandiku ma bëggoon xam ndax gént mën nañ cee sukkandiku ci ay téere kese firi doomu aadama bi géntam waaw xam naa ni daal mboolem sëriñ si ci réew mi sama téléphone bi bu la neexee nga déglu seen message ku ci gént lu xamul maa koy firi te fi ne dafa bokk ci yooyu nëbb nangoo ko waxtaanee man looloo ma jaaxal. waaw dama ni man xam nga waxuma euh, koo xam ni yow xamoo dara. Mhm. waaye ñi nga xam ne dañoo dooni sëriñ ba pare laa wax <laughs> te waxuma la sëriñ si ngay gis ñuy wax naan ay wàllu marabu sëriñ physiquement. ñoo mhm. xam ne dañoo ŋànki tarixa dama ne la ku ci gént dara. Mhm. ba gént gi desul lu lijjanti ko ci réew mi fii moom maa koy firi. parce que local yaa ngi fii bu ci génn nag benn sëriñ dama ne sëriñ si fii gént luñ xamul. ñu war koo lijjanti. dañ jël téere gént yépp lijjanti ko ci waaye suñ ci bëggee am lu leen leer loo xam ne li ñuy wax yàq satan wala xaqiixatan mm-hmm. sama kàddu lañ ciy déglu dégg nga wax bi bu baax euh, baytaala jamono ngi ñëw mm-hmm. ni àdduna avancé noonu la wàllu yàlla y avancé ñu bari nag dañoo gaaw a tiit mm-hmm. nañ am ak dal yaa ngi dëgg adduna bi dafa am boroom ki ko sàkk lu fi ñëw jaaxalu ko yaa ngi dëgg doomu aadama yi nag fi ñu toll ñoom ñëpp dañoo jàpp ni dañuy faatu ndax ni ñu gisee lii nekk ci àdduna bi di ko di ko di ci xaw a defee effort tuuti te loolu dafa wuteeg dee trop lii xëy di faatu te lii faatu leen ñaata la nañ xam ni allazi xalaqa al mawta wal hayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa azizul ghafuur ku sa waxtu jotu doo dem te ku ne lañ fi war a fekkee fii ngay toog fekkee ko mhm. góor ñeeg jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi mhm. nañ dalal seen xel te moytu te xam ne suñu boroom lim décidé rek kay am ni àdduna mel nag mhm. li may digal nit ñi mooy bum tiital kenn ndax mën naa mel nu raw nii ci jamono mhm. te ñam fi fekkit dañuy xool nuñ dundeek adduna rekk doomu aadama lu ñëw na bootu ci ginnaaw boroomam mhm. te déglu ci yàlla mhm. loolu rek am solo waaye leneen loo jiital lu dul yàlla te mu yëfi yàlla la ci jiital day àndak ak loola sànq la fi àdduna toll nii nag ku fi am nopp yoo xam ne da nga koo jox keneen ku dul sa borom di ko rëccu bis d'accord da wax bi nit ñi lu jiitu ci ñoom mu yàlla mi leen sàkk defal leen teraanga joo xam ni kenn nu mun leen koo deful ku dul yàlla nañ ko delloo li mu leen teralee mooy seen jëmm ji yaa ngi dégg suñ boroom waxul ni dama bind nit ñi ak junne yi ngir ñu jaamu ma ñu ne fi rek di fox nañ jaamu yàlla ndax loolu da ko bëgg ci ñun mm-hmm. mbégteem la te liy bëggal yàlla nag. Mhm. mooy neexal àdduna. wallaahi ndeysaan. dégg nga <laughs> maa ngi leen di siyaar. Mhm. di leen ñaanal yàlla. Mhm, di ko ñaanal kilifa diine yi. man de gis naa seen taxawaay. macha ci njaboot gi. sëñ Muntaxa Mbakke. Serigne Mbaye Sy Mansour. fi yàgg loolu taxaw yuñ taxawee. Mhm. tàllal yàlla seeni loxo. Mhm. ci waxtu yu ne. Mhm. ngir réew mi ak li ci biiram. borom réew mi ak njabootam moom it. ministre ba yor santé. ñi armu baak. ñëpp génn kenn ku ci ne génn sa bëti yërmande. di ko xool askan wi. askan woowu ci boppam maa ngi leen di jaanal yàlla mhm. mbooleem lu ñuy sàkku mhm. tam nekk ci suñu boroom yàlla na ci jot amiin yaa mbas mii nag nekk ci réew mi mhm. kenn dong nga ko fi mën a génne du ñaar du ñakk mbas mi am médecin du ko fi génne ab sëriñ du ko fi génne ab du ko fi génne yàlla dong ko fi génne yàlla nag xam nga li teemu génn fi mbas mi hmm. dañ ko bàyyeegul ak yàlla mbas mii lañ bàyyeegul ak yàlla dañ cee ne di lëj-lëji rek waaye buñ ni woon tekk ni saa mun naa ñu ni ko ñëwal tëre nañ day ñëw rek mbas mi dem kon mbas mi nañ ko bàyyeeg yàlla hmm. wax ju bari jëli ko fi hmm. compte cas jëlewu ko fi commentaire jëlewu ko fi ay vaccin jëlewu ko fi li fiy jële mbas mi mooy yàlla nañ ko ko bàyyee mm-hmm. te déglu ko maa ngi nag ñaanal itam mm-hmm. ñi nga xam ni dañuy sàkku ci gouvernement bi mm-hmm. te gouvernement bi kat yaakaar naa ni man su leen ñaanee dinañ ma ko may mooy ñi bëgg ñu ubbil leen jumaa yi te it may leen ñu defee ko ni ko ñëpp di defee mooy jël mesures yi ci war maa ngi ñaan gouvernement bi ci sama kàddu bopp na leen ko may loolu wàññiwu ko dara ndax su leen ko mayee rek mhm. mën naa am lu ci juddoo loo xam ni mhm. dina kawe njortam nit yi daara yi itam mhm. maa ngi leen di digal buñ xeeb seen bopp ndax doomu aadama buñ la valoriser wul yow amal valeur rek ndax alquran yàllaa ko yëkkatil boppam teel ko boppam tànn ay nit dénk leen ko ña ca bokk bañ ràññee leen ci nañ ca boole seen bopp sax ca dàkk ndax loolu mooy ndimbalu yàlla ci ñoom mhm. ak njaboot nag boo ko amee ñu dëkkee leen a dóor mhm. dëkkee leen a toroxal loola teewul nga doon seen baay kon ñoom coonañ cay daj mhm. ngir taxawal daara li ñu jànkoon te lépp nañ ko muñ te nag du ñuy jeexil xam ni nattub alquran gën naa diis loolu Hmm? di nga wax bi bu baax nag ma leen ko fàttalil hmm. ñoom naa ngi leen di ñaanal yàlla ñoom hmm, incha seen daara yëpp ñoom Oustaz Alioune Sall ak ñoom Iran ñoom góor ga nekk Kaolack te ngànk daara yi réew mi sonn ci lool dañuy wax bay jooy waaye seen jooy yooyu mbégtem suñ borom la ndax kenn ko dénoncé dëgg moo gënal yàlla million doomu aadama buy appee aw fen réew mi nag ndaw ak mag a ci yem. Mhm. lenn daal mooy li nga xam ni mën naa jëriñ askan wi yëpp. Mhm. mooy kenn ku ne na nga fex bi bul yées. Mhm. Hmm? ñu yëkkatee ndoo di tegandoo. ndax ñun ñëpp ñoo ko bokk. te kenn mën koo yóbbu fenn bàyyi sa morom. ka ñàkk ba amul daraak. ka am ba du jeexalak ak ñoom ñëpp ñoo bokk réew kenn ku nekk nag xam na ni am jàngale moom ci sëñ tubaa la yam waaye waxuma sëñ tubaa rek waaye sëñ Abdou Xaadar Mbàkke jàngal nañu fii bis ci jumaay tubaa ji loo xam ni danañu leçon ñun ñëpp yaa ngi dégg am na jëmm joo xam ni kilifa la moo ëppoon alal ci réew mi bi mu faatoo fii ñu teg ko mu faatu ab dof faatu. Mhm. ñu boole ñaari jëmm yi teg. Mhm. war leen a jullee. jullee te bi sëñ bi bi sëñ Abdou Khadre Mbacke lu wax. ana diw ci ñaar ñi. daa ko boobu mu ñu jàngal nag. Mhm. mooy ki ñàkk ba dof. ak ki am ba dul jeexal ñooyam ci kanamu yàlla. mooy li ñu suñ tubaa yare ñun murid yi mhm. ñun taalibe yi mhm. lu mën a am rek mhm. nañ ko bàyyee yàlla te doyloo yàlla wax naa la fii ni la akramani bi qul huwa allahu ahad rabbi walam yakun lahu kufan ahad fu suñ tubaa àgg loola ak fa àggale def yàlla mu yàlla ci kanam mu jaam ñëpp ëmbal ñëpp yàlla jooju yàlla boole koog ñëpp tàggatal ko lépp mu nekk ci loxoom nañu gën a bàyyi suñu xel suñ bopp te gën a xam liñ doon lan la ñun ay taalibe lañ dara waruñoo jaaxal ku nekk référence su adduna bépp war ngaa bàyyi sa bopp adduna bépp di référé ci yow. dégg wax bi. nañu xam ni fi adduna toll faw ñu toll fa baytaala te adduna fi mu toll bokkul ak fi nit ñi foog ni fa la toll. daa soqi ay jéego nañ soqi ay jéego ci yaatal suñ lépp xam-xam beeg. am-am beeg. xalaat yeeg taxawaay yeeg yëpp ngir réew mi am na fu jëm foo xam ni buñ ko fa mënta yóbbit ñeneen ñiy ñëw. Mhm. dañ ko fa yóbbu. Mhm. kon buñ yées. yal na yàlla dolli ñu jàmm. amiin yaa rabbal aalamiin defal ñu saada daara ni defal ñu dégg ak topp. amiin yaa koor gi ñu génn ci ak jàmm. amiin bunte xéewal yi ubbeeku nit ñu nekkaat seen i actualité. Mhm. noonu laa koy ñaanalee ñëpp daal Baye Talla. macha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye le marabout voyant international wax dëgg yàlla ci émission bu solo bi waaye message bi nga xamante ni tam lancé na ko askanu Sénégal lancé ko suñu mbokk internet yi. lancé ko itam sénégalais de la diaspora kon yàlla nañ ci yàlla defal dégg defal ñu ci topp sant la bu baax a baax ñaanal la sama borom doole laa taxaw doole guddal saw fan gën a wéral cëri ba mbooleem yéene yi ak ko yeggale la ko ak sago waaye sant bu a baax tamit téléspectateurs yi leen kenn ku ci nekk lay bëggam ak yéenam ak ma bétam yàlla na yàlla sama borom moom mi nga xam ne moo dul jeexal dara jàppandal ko ci dara jee yonente bu ta deb alei satu wasalaam barkeb sóoru ramadan gi ngeen jëf wasalaam